الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا ينبغي لجلال وجهه لعظيم سلطانه وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد أفضل الأولين والآخرين وعلى آله وسلم على جميع مشايخنا ونولياء الله في السالفين والخالفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مك جلدي مك تالبي نولاني نيو دي لين زيارة فوني مانو نك تي غوخ ادنا دي وخني ا آه، سوني كادوي ليكو جمال موي درس بو خامني ان سي مبوكي ñenn ci mbokk yi sàkk nañ ku ci ñu muy lan fas yéene topp mbindi mag ñi nga xam ne bàyyi nañ ko fi rawatina mag yi tasawuf yu mag yooyu euh, topp seen mbind di ko fàttaliwante ñu bëgg a gis kenn ci ñoom nga xam ne mën nga ko tuddee alam min alaami tasawuf وخانا من تدي السوف الوارع التقي أو الإسحاق مولانا سيد الحاج إبراهيم نياس المالكي الشعر التجاني موكمي من نكون كو برينا بو مسألة لنتي ليرال نكو برينا بو أمي غغغنتي waaye ma ne topp mbindam dana mu dana tax nga xam dëgg-dëgg mbokk mi moto sayu fi daal lan mooy seen ndëgg waaye dina tax itam yow mbokk mi nga xam dëgg-dëgg moto sayu fi nan lañ déggee diina waaye ban taxawaay lañ am ci yonent bi alayhi salaatu ñu bëgg a dal téere boobu wala bataaxal boobu nga xam ni daf ci ñëw ngir leeral lënt lënt bu amoon ci diine wa yenn ulamaa yi réer ci ñenn ñaa ciy bind ñenn ñaa ngi ciy taalif ñenn ñaa ngi ciy def ay publication ci jamono jooju mu ñëw bind benn téere tuddee ko lan nujuumul hudaa fi kawni nabiyina afdali man daa ila allahi wa hada mbokk mi tiitir bi rek foor la biddiw yaa ñoom biddiw yi njub lañ waaye ngir lan ci ne yonent bi sallallahu alayhi moo gën képp koo xam ne da nga woote jëm ci yàlla te duñu pay bi la waaye mu ne wax ja dëgg la ji lañ ciy déggee mooy moo gën mbooleem mbindeef lu ko waral albiyaaw yi ñoo woote jëm ci yàlla ñoom ñooy ngën gi mbindeef ñoom lan ñoom lan biyaaw yi ñooy ngën gi mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk tànneef ci ñoom obitaali e, kon wax ji mooy yonent bi mooy ngën gi mbindeef lii la jël def ko mu nekk titre bi mu fas yéene nag indi point yooyee leeral li mu wax fan la ko teg ndaxte dafa amoon ci ñenn ci yi ñu daan wax boroom xam-xam yi ñu ne yonent bi yàlla waxut fenn ne moo gën yonent yi yàlla waxut fenn ci alxuraan ne moo gën mbindee fi mu ne leen déedéet yéen a xamul rek waaye yàlla wax na ko jàngale na ko bari na lu ko tegtal ci xam-xam ñëw leen ànd ak man ma leeral leen nan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënee yonent yi boobu a boo xam ne taalif na ko ci jamono joo xam ne mën nañ ni léegi mu yàgg na sax kenn ci borom xam-xam yi koo xam ne firi woon na ko ci RTS solo nañ ko ñu nettali ñu ko ne Cheikh Gassama firi na Nujumul Hudaa bi ci RTS ci jamono jooju waaye dafa firi rek jàngale jàngale jàngale gaa yaa ngay déglu gaa yaa ngay commentaire borom xam-xam yaa ngay apprécier waxut sax kan moo bind dafa wax rek jàngale ba mu pare rek ñu nag maa ngi leen xamal ne téere bii nga xam ne ñu ngi ko doon jàng ci ko bind mooy Cheikh Ibrahim Niass Kawlax gaa yi askay ma ne dafa am xijaab bu nekk ci ñun fii ci senegaal rawatina ñii woote woon ay jàngkat lañ bal ñi nga xam ne dañu woote woo ne dañu ay mutasawif lañ ay sufiyanke lañ nekk ci ay tariqa am na kiidaay gu nekk ci ñun te war nañu fexe dagg ko mooy kiidaay kii wax kër sàngam la dëkk kër sàngam la féete ah kooku daal waxam ko nanga ba tax wax ji bu doon jëriñ itam attan ngaa bàyyi wax ji rek doonte du jëriñ war na yàlla billah xëj na xikma boobu moo nekkoon ci mbir mi mu xam ne am na xam ne bu départ rek ne téere bi Alaaji Ibrahima ñu su ko bind moytu mu tayal te ndég fa mu toll Alaaji Ibrahima waaye dafa bàyyi rek wax xam-xam eh, ñu bëgg xam-xam topp ko ba mu paree lay soog a téere bi ñu di jàng moo ko tey kon téere boobu lañ bëgg ñu incha allah mbokk mi ànd ci ak yéen ci kàttanu yàlla ba keroog rek waree ki nga xam ne moo mooy téere bi daa leen du téere bu rëy boo xam ne dañ naan askay bii téere rëy téere la boo xam ne téere bu méngoog ñooñ jamono la ndaxte ñooñ jamono mooy rekk ñooñ gàttal kon nag boo leen bëggee jàngal téere boo xam ne wax dëgg yàlla réyul lool dinañ ci sawar ndax dina gaaw a pare xam la ci nekk te jóg doxi seen soxla waa ji daal di ko melal ca njëlbeenu téere ba basmala mooy bismillahi rahmaani rahim teg ci salaatul fatixi li ma uxliqa teg ci nag daal di présenté téere bi wax ci borom Mawlana Cheikh Ibrahim wax yu foor màggal koy wane ne sufiyanke la woon wane mu jëddit la suufi wane ne ku ragaloon yàlla ku dëddu àdduna dégg nga wane nag ànd ak yëpp ci ngiram maay la nekkoon nekkoon ci ko di achaari nekkoon tijaan dëkk ci kaw ملي ورال نك مو بند بند مي موي ردنا على من انكر افضليه النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق تونتو نيغا خامني دانيو ويدي غيني لو يونتو صلى الله عليه وسلم تي مولين من النبيين والمرسلين بزاف تي يونتي برم نوي برم سالاي دم جيخ mu tuddee ko nujumul huda ni ko نجوم الهدى في كون نبينا أفضل من بعد لكم يتي تدفع مصرلي واجي يمي بنتي كو جورنال بدناي تنقنا بوس كي نخمني ما يدير جورنال بمقاو جندكو ديما خم لا فا نيك يعني جورنال نا بو خامي تي دي بو جند يو نكو بوكو ليراي اه واي بري جورنال بو جندي بوكو ليري ريك li nga xam ne la ca biir sax moo gën a foor far moo gën a am jazaaba mooy moo gën a xëcc moo gën a yéeme sax far titre ba ci kaw ñu joxoñ la ci lu mel ni téere bi incha allah kon tuddee na ko nujuumul huda yonent yëpp ay naj mu lañ kon ni ko imaam bu say misaalale ca bindam ba إنما مثل الصفات للناس كما مثل النجوم النار فالليل انتي دنيا رومي رك ني بدي دي ملال بدي وي ندخ دي ملال دي دي بدي بدي وي تي ندخ لاي خول سي ندخ ما دي بدي كوري خامنا ني بدي وي سي ندخ ما بوك لا بدي وي واي نا مو كور ملال الحمد لله الذي فضل بعض النبيين على بعض ورفع بعضهم ولا ورفع بعضهم فوق بعض درجات جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم كلا وكلية ومقامه فوق المقامات وهو بالنص والإجماع أفضل وأكمل المخلوقات وسيد ولد آدم ورحمة خلقه دين حتى أرباب النبوة والرسالة ñu mel ni niñ baaxoo gis ci mbindam rek mooy commencé sant yàlla julli ci nentum bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ko miin mbindam moom Mawlana Cheikh Ibrahim rek miin loolu sunna rek lay jëfee yonent bi moo ñu tegtal ne lépp lu ñuy commencé mbir nañ ko commencé ci tudd yàlla mu sant yàlla nag mi xam ne nee na moo gënale yónnentum yi ñenn ci kaw ñenn ne loolu danga ko mën a nangu bu baax ci sa bopp wala nga suri dama adama bi yàlla defal na ko ay cër waaye cër yooyu dafa gënale lenn ci ñoom ci kaw yeneen ya ci bu ci nekk mu jox la boo xam ne wuute naag sa bu morom soo bëgg bëggoon a def boobu doo ko mën a def te moom mu ko jagoo nga nangul ko ko kon yàlla itam bi mu gënale yonent yi ñoomu neen ñu gënante ñoomu neen dañ ko nangu xam ne dogalu seen borom la waaye moo jaar jaakon yow mi nga xam ni kenn ne nga ci xeeti ñooñu te nga nangu li nga xam ne moom la yàlla def moo tax mu ne maa ngi sant yàlla mi gënale yonent yi baada nabiina ala baadi waaye mu yëkkati ñeen ñi ci kaw ñi ci des wa rafaa baadahum fawqa baadin daraja mooy yàlla moom laay sant gaaw xaat salaatu ala nabi bi mu def ma ne gaaw na laa iftitaax bi mu def mooy ubbi gi mu def gaaw na ba joxoñ la njàngale mi fan la jëm wa jaala sayidana muhammad sallallahu alayhi wa sallam afdala kul afdalahum yàlla mu ne yonent boobu yàlla def sallallahu alayhi wa mu nekk koo xam ne moo leen gën kullan wa kulliya kullan gi la daal di gaaral nag njëlbeenu téere bi la daal di gaaral loolu teg ko nag waa ji doon incarné moo jaa kii de wax na ni yonent bi kon moo gën yonent yi fan la ko teg waxte daf ne euh, rafaa baadahum fawqa baadin darajaati wa jaala nabiyana jaala sayidina muhammadan sallallahu alayhi wa afdalahum la wax kullan moo leen gën ne kullan bi moom mooy ñoom ñëpp rek waaye mu ñëw gën koo xóotal ne wa kulliyatan kulliyatan moom dafay ànd ak xukkumu ànd moom mooy euh, lépp goo xam ne du yem ci lim rek waaye ca maanaay ca daraje ca maqaamay bàyyiwul dara suba nga nekkoon gën googu mu gën leen nan la demee mu ne dinaa ci ñëw ak yow مقام مسخفر مو غنا كاجن مقام من الديوا من لك هو بالنص والاجماع افضل واكمل المخلوقات من اللي ما يخني في النص لا اي تكسي وور وبالاجماع في ديب بروم خم في لا توخلي ني صلى الله عليه وسلم افضل واكمل المخلوقات مو te moo gën a man bindee fi ma ne wax li yomb na waaye lay ko moo jafe su fekkutoon su dugudoon ak lay yu leer rek mu doon problème ndaxte su boobaa ku nekk dafay wax lu la neex lawlal isnaadu la qaala man shaa ma shaa su nekkuloo nag wéeruwaay wu dëgër su nekkuloo nag preuve ku nekk dafay wax lu ko neex waaye nag wax lu mu dëgg-dëgg wax lu mu jub-jub wax lu mu baax baax su fekkee ki ko wax mënu koo lay rek du waxam su fekkee ki ko wax mënu koo lay rek du dëggam su fekkee ko wax mënu koo xam-xam sa xam-xam daal mooy li nga wax ñu ne la foo ko teg nga ne leen moo wax leen samay cislaay moom nag ñu ne yonent bi moo gën yonent yi raw leen raw ci maqaama moo leen raw dégg nga ci ngëneel mu ne li may wax ni nag texte lay nas yu wóor la waxi ijmaa la ñu ne waaw lii lépp yonent bi moo ko roy yonent yi mu ne kaay ma tegal leen ci leen wa sayyidu wala di aadama moom mooy sangu doomu aadama wa rahmatul xalqi mooy yërmaande ci mbindeef xatta arbaab bi la nu wuti risaala ba ci sax borom nu woyeeg risaala yi yonent yi sax ci lañ bokk moom mooy yërmande yàlla ci mbindeef yi mooy sangu doomu aadama xanaa kon wax ji wax ji jeex na kon mbokk mi lii la Mawlana Cheikh Ibrahim gaaral ci njëlbéenu waxam ne yonent bi daal moo gën nit ñi moo gën yonent yi moo gën a kawe maqaam moom safar mooy sangu doomu aadama lii nag su fekkee ne lay nañ ko bam leer rek ñu dégg ko su boobaa lay dafay jeex ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën ñëpp képp ku wax loolu nag ñu ne la foo ko teg mënoo koo lay rek yow dafay mel ni ku àbbu xam-xam boo mënta lay donte li nga wax dëgg la soo ko mënta lay rek loolu jafe-jafe la kon loolu lu mat a xel la su ngeen ñu toppee incha allah ànd ak ñu dina dem ba leer. wasaayu la nit ñi yonent bi moo gën yonent yi nu mën a amee rek nga leeralal ko nga ci anam bu yomb anam bu neex a dégg teg ko ci ay texte yu leer teg ko ci xam-xam bu leer boo xam ne kenn du ko mën génn incha allah boo ko bay lañu waxoon ne dinañ ko ubbee darsu bi di ñaan yàlla defal ñu tawfiq commencé nañ ko ci bismillah ñu mën ko mottali ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi tàggu mbokk yi ba feneen yoon incha allah ñu continue di seen mbokk la Assane Soufi At Tidjani